léegi wuli buy loolu yëpp jeexee nag am nga combat sa diggante ak ak ak Adama Diouf mu taxawee léegi def na 4 mois xaw ma 5 mois Adama Diouf moom lalu yow nag yaa ngi feeñ rek tey yaa ngi kaw Kaolack suba yaa ngi Thiès ba sa papa bi nga tuddee doom Gaston Mbengue nee nga delloo avance bi ndax combat boobu amoo ci chance dañ lay daal. waa xam nga tey maa ngi Thiès suba maa ngi Kaolack liggéey la quoi euh, di sant aussi Lamine Samba sama patron sama xarit maa ngi koy sant bu baax borom TFM. sama tête de fil Lamine sama di sant Mao Cissé di sant waa TFM yëpp comprendre keroog doo dem ci bi Birane Ndour xaytu ki jëpp ne ma sa liggéey gis naa ko kii Ndiaga Ndour ne ma Youssou Ndour kontaan na ci liggéey bi ne wax ma ne ma nee na da nga koy defi nii ak nii ak nii xam nga lu am na solo tey bu ma nekkee mbër ba pare nekkaat reporter comme yéen san Sénégal Gaston Mbengue aussi sama papa la sama père la mais dama am combat ak Adama Diouf ma jot avance ma wax ak sama moroom gor toog gor ca wax ja man gor laa wax dëggu si yàlla xa même bu ma doon dee du ma jot avance te du ma sax parce que Gaston sama papa la do moo ma joxoon saa Thiès xanaa moom ba ma jox saa Thiès xam nga ne moo mën. ah, ah Gaston moom itam jox ma saa Thiès fayma cinquante mille deux mille neuf fanweeri junni saa kër dama dóoma dóor yu jar cinq million comprend nga nu jox ma adama ju mu naa dina am bi damay bëre parce que Sa Thiès moo gën a dansé Adama Diouf duma ko deloo tey duma ko deloo suba Adama Diouf xëy na moom xamuma mais man xam na sama bopp te xam naa ne Adama Diouf man mën naa ko daan ku bëreeg Sa Thiès bëreeg Tidiane Faye bëreeg Thiat bëreeg Yékini Junior Adama Diouf jaaxal la c'est que Adama Diouf bu bu ñu fàttee bi victoire la am ci lamb ji waaw man ku am ñaari victoire dina ragal te Kam jël na engagement nee ma lu ci ko def te nag buy fatte ne pol la de waaw woon pol pol yëpp ay ñëw takk waa ji ba ne Bassirou bu jëlee engagement damay nangu. Gaston damay bëre sama papa nga nag wax dëggu si mais Bassirou kam mii jox naa ko sama bakkanto nee na ma combat bi sa bakkanam day teg. Gaston xamul kuy daan kuy daan Gaston daa xam gul kuy daan déet. moom ci fi non fi mu ko teg mooy ah, xeeb xeeb ma. xeeb ah loolu laa mën a wax. parce que mu ne Adama juuf moo la mën mais pourquoi moom mu ne ma moo mën te moom mu joxama Sa Thiès laa wax. mais wulli Gaston xam ak Sa Thiès ma bëre woon ak ñooñu itam Adama Diouf bii. wulli bi sa gën a dal xel. wulli bii man de wulli bii. bii wulli. am Basiru Ka am terrain sama xel daal moo gën a neex wulli ba ba nag Sa Thiès ma ba ba Sa Thiès cent cinquante mille. am papi général kii fay ma un million et papi général bi Gaston waxee. Gaston bi bi mu waxee. papi général dafa ma woo ci guddi gi. na ma doo di la bi. combat bi sama combat maa lay andi stade. papi général wax mu ne ma doo di la bi. parce que Gaston li li mu foog parce dafa am ci ma yërmande pour bu ma Adama Diouf ma ëpp Serigne ma ëpp nagam ëpp ma Serigne Basirou Ka am na ay pël moom séeréer la man séeréer laa man man am naa séeréer yi am naa ay pël. Diouf la sant Diouf la sant papi général maam mbindis papi général nee na ma lu lu maam mbindis ma yàq ko waaw papi général nee ma man maa lay andi stade nëbbuwuma laquwuma séeréer nga comme moom te yow laa xam te aadama Diouf nag ñëpp xam xaar ko ne. dama koy dóor ba mu tedd gars yi pourquoi nu ragal gaaw Bassirou pël yaa ngi fi de bas ah. te waan pël benn mun ni ni nga fi ni ni pël da koy defar ni ni laal sukk kuus est-ce que du ma wut kuus tegal ko ci kanamam du gis. <laughs> du ma gis mais nag di sant Lamine di sant waa Sénégal gépp di xamal ne aussi ba Bassirou Kami nañu ko jàppale sama supporters yi nekk Sénégal ak ñu nekk ci diaspora ku ci bëgg kër gu wóor laa wax parce que nekk bitim réew jox sa mag xaalis pour mu lay jëndal kër wóorut kat da koy lekk. ku jox sama kër ay ginaar la koy jëndee jabaram takk ci ñaareel yow ngay liggéey ca bitim réew moom mu takk fii ñaareel dugg naa daat nga laaj ko sa kër mën naa laa tey ak suba ku jox sa nijaay kër yumpañ lay takkalaat yumpañ bi ndaw la takkal dugg naa daat balaa caag nga woot Basiru Kami jox ko mu wutal kër amul caaxaan xam nga man li ma ko gëmee ku gëm Serigne Touba doo caaxaan parce que loo wax mu ne Serigne Touba ku gëm Serigne Touba gëm maam El Hadj Malick gëm sunu kilifa yu diine yi maanaam ku ku leen gëm dëgg doo njublaan bari que sëñ ba ku fi nekk bitim réew Italie Espagne France États-Unis jox sama kër jabar la la koy takke na nu ñëw ci Basiru Kami woo ko mu jox leen kër yu baax man xam naa ko ku bëgg woote na def sosa

kenn joxatul sa mbokk mbokk yi nag waxuma ñëpp mais ñu bari joxatul seen mbokk kër parce que nekk bitim réew séddaay bii di liggéey bëgg kër nga nekk Dakar nu jox la xaay nga takk ko jabar mën naa ñàkk woote leen ci Basiru Kam mi Touba Madinatul njurul immobilier mu ngi ci Kër Massar woor na te toto gaaw na Lac Rose laa am man Lac Rose laa am Lamine Lac Rose yow dama la war a sori parce que vraiment danga may sori rek bee langee ma dem ca Lac Rose. te géej waroo sëñ bi day may Lac Rose ki dafa baax ba pare li may gën a neex sëriñ Saliou laa tudd moom mu bëgg sëñ Saliou sëñ Saliou mu sama turandoo mu tudde ma ko ma ko doon ma demoon fa ñetti combat yi nga xam ne bi muy mu jël làqu ñetti combat yi ma fa dem yépp ñaana ma dama daan ba ma fa jógee laa jëkk a wax wulli baatim boobu topp ma macha allah kon Basiru ka ku baax la yéen a baax yéen a gore